Modou loo dootul bëre ak Balla Gaye 2 loolu yi nag Khadim Gadiaga sax doon na annoncé trois cent millions waaye euh, Biram Ñing moom nee na bu njëgg àggoon ci cinq cent millions yi tamit bëre wuñu moom loolu yi daal la ñu Biram xabaar defe naa am na élément alaaj Modou ñu déglu dellu si waat ndax euh, effectivement Modou dafa pare pour jël Balla Gaye 2 bu ñu ko fee yenn somi wala mën na ne tey Modou dootul jël Balla. waaw posé nga ma question boo xam ne bi bu bu am solo la parce euh, mooy président Rock Énergie Khadim Gadiaga mooy président Rock Énergie mm-hmm. am na yéeneem ndëkk mm-hmm. ci moodu mm-hmm. loolu moom kenn du ko nattable peut-être loolu moo tax mu waxee noonu mais moodu itinéraire am bi mu jël dara mënu ko si jële du xaalis du leneen moom dafa am itinéraire boo xam ne bi dañ ko tracé bu pare mu wax cité ñi nga xam ne ñi ñoom la war a mën a bëreel ci làmb ji. mais Balla bokku ci. wala bokku ci. Euh, Eumeu Sène bokku ci. Gris Bordeaux bokku ci. Lac de bokku ci. ñooñu Modou dootul bëreeti ak dootul bëreeti kon mënatuñu xaaral un troisième euh, euh, remake entre ak Balla. loolu moom. il n'est même pas question. ah Xaadim nag am na yéene ci kii parce que tey opportunité yi parce que mais Modou. Mm. Euh, Sénégal yëpp xam nañ ne yaa ngi dégg moom bu décidé dara. pare na ci. du wax du wax ak kenn du kii ak kenn mais nag ku nekk am nga sëy sëy kii sa sa sa vraiment sa sa sa sa yéene sa yéene si si moom nga xam ne bii mais Modou gën naa ne cinq cent millions sax buñ ko ko fayoon du bëri ak Balla non parce que nekkul si plan de kii plan de carrière parce que moom dafa teg plan de carrière parce que Modou ku ko gis xam ne euh, vraiment mbër yi moo ci gën a professionnel wax ji moo fi ne rek. Mhm. mais dafa. Birame ñu ngi la Assane euh, daal kon bu ñu sukkandikoo ci moom Modou euh, dafa am yoonu xàll fa yéene caa jaar kon boog la na wëri couronne bi feneen. Mhm. kal ko ci booy yi bëreek Modou waaye Modou daal pare na ci mbiri lim ne mbëri. waaw ñu ngi koy nuyu moom sunu papa jooju di Biram Ñing di ko nuyu Modou Lo ak kook nga xamante ni mooy Balla Gaye yaakaar naa Xaadim Gajaga wax nga ni wax na si ñu ngi koy siyaare baax te di leen ndokkeel mais kàddu yi daal Biram Ñing na na si deltu ginnaaw wala Modou Lo defaat ci beneen communication def si na si deltu ginnaaw moom Biram Ñing wala Modou Lo génnaat def si sorti si nu mu gën a gaawee mu def si sorti daan ni moom làmb ji mooy roi amul droit ni du ma bëree kenn moom Modou Lo amu si droit ñii di staff Modou Lo amuñu si droit def nañ njuumte bu rëy. mais ñi muy wax ne du bëreek ñoom bëri naa ak ñoom rëy rëy rëy lañ def. mais ñi muy wax bëri naa ak ñoom. waaw na bëri ñoom téeméeri yoon mais dafa yor roi des arènes. Hmm. roi des arènes dañ koo yor ñu ne kii kat moom moo daan léegi mooy roi des arènes léegi nag ñi ngi xaar promoteur yi promoteur bu ñëw boole kook nit bu ko fayee mu bëree kooka ba ba mu ñàkk roi des bi. Hmm. Hmm? waaw mais lii mi ngi mel ne dañ koo teg daan ni ko daan kenn nga jël nga daal di koy daan ni duutu ma ba may së ak hélas mi hélas dama daf maa gañe dama ko gañe yaa gañe ni ko bàyyi dama ko gañe bëgg a bàyyi mënu ma déet loolu mun a ne gañe ma pare bàyyi doo ko def waaw daal di may dóor xeex ak man mais loolu seen premier jeu waaw premier mais kii ñi mu wax ni bëri naa ñoom da doon bëree ñoom ñu ko ba mu jotee si roi de Sarène mu ne duutuma bëree ñoom kon mënutu leen xam na ni bu bëreeg ñoom ñàkk roi des arènes bi loolu lañ koy àttee. xam na ni bu bëreeg ñoom ñàkk roi des arènes mu ne duutuma bëreeg ñoom. kon ba may dégg waa këram daan na bàyyi Balla boobu jëlagul couronne bi bañ ba mu ko daanee deuxième. Balla dafa mënut a daan Balla Modou Lo fii ba cent ans mënut a daan Balla. oui moom mënu ko daan loolu yàlla moo ko def Modou Lo ni mu mane ñenn ñi noonu la ko Balla mane mais du question que man tey jii Modou Lo dafa war a ñëw ni man bàyyiwuma fi kenn ku ñëw ma bëreeg moom léegi bu ñëwee tey ni ko Balla Gaye ngi nii mu xam ne du bëreeg mun leen indi leen deux milliards. Ah. gars yi ni ko mënuñu si loolu waaw kenn ku nekk ak lam koy la muy bëreeg moom. Mhm. mais amul droit taxaw ni du ma bëreeg diw. munoo gagné ba pare ni duutuma duutuma sa. waaw mais nee dafa am booy la bëgg a may seen sens non non pas booy booy yeeg la war a yemale. bu fekkee ne tànn na ni ñii duutuma bëreeg ñoom kon na nag am ngorog duutu doon seen roi des arènes. ah kay wallaahi. ah day fekk ñoom nekkoon ci arène bi roi des arènes la ñu wax. non non non roi des arènes boo nee kii bokku ci kii duutuma bëreeg moom Gris doo roi des arènes am Balla Gaye du roi des arènes am Lac de Guiers du roi des arènes Bombardier du roi des arènes am juróomi nit ñii du seen roi des arènes nañ wuti seen roi des arènes Tapha Tine du roi des arènes am bu fekkee boole na ko ndax Tapha Tine it gis nga ni mu defee Tapha Tine bi Tapha Tine yi boole wu ko ci de. waa boole wu ko ci mais xam naa ne përe wut pour bëree moom te dafa war a moom. Hmm. bu fekkee ne nag tànn na ni ñii dutuma bëree ñoom nañ am ngorog ñii du duma seen roi des arènes léegi roi des arènes bii pour booyi la na booyi ñëw ku ko si mën jël jël hmm. kon nañ à de sordi bi roi des arènes booyi moo fi ne man te a jël te ngaa bañ a teel a jël maa dana si defaat communication moom biram ñu ngi dina si deltu ginnaaw waa CNG dinañ ci ñëw bu fekkee ne nanguut a bëreeg ñii ba def ko waa CNG dinañ nangu roi de sarène bu organisé waat mais diw du bëreeg diw loolu c'est pas la première fois mu am ko fi roi de si droit tànn ay nit jël naa roi de sarène waaye ñi ñëpp dutuma bëreeg ñoom léegi ñee laay bëreel mais amul droit li des sama carrière booy laay bëreel déedéet amu si droit non booy laay bëreel dama ni Balla Gaye am na droit ñëpp am droit wax ko amul droit wax ni du ma bëreeg ñii amu si droit dafa yor loo xamante ni sëla dafa së jot ci ne bàyyi naa loolu mënta ne far force dina bëreeg ñoom. ah bon waaw. ba doon suñu roi des arènes. yéen maa ko wax yéen ñan. ñun ñëpp ku bëgg man sax tey jii ma ngeem dafa war a bëreeg man. eh Assane sam ngemb. sama ngemb damay ngemb ba dongali ñi ñëpp maa ngi dàq ngemb maa ngi dàq. Assane ngemb. joxe du ma la nga fi ngemb. joxe hélas. <laughs> Assane yow nga ngemb yow. ci waaw dinaa la woon sama photo yi ma ngemboo. waaw mën naa am ay jamono mais léegi nga ngemb. waaw. <laughs> yéen damay sol boluson laxas euh, kii maa jigéen ki mu dalaloon mi ngi dalaloon mbëru sénét bi dem mi ngi leen di nuyu bi ko maa jigéen laajee ni ko looy conseil sëriñu ndey géey bi ndax ji defet di daa bari mu ni maa ngi moom a yem kat mënu ma koo <laughs> maa ko ëppi defet <laughs> day daanu may daanu loolu mooy honnête. <laughs> bu bu Siteu dafa daa wax nga dëgg de. bu Siteu daanaan la. dëgg dëgg de nee ni may daanoo lay daanoo. <laughs> aywa bu bu la ñuy topp quoi. <laughs> ak ama amaaje nee amaaje xewut. kooku moom xam naa ne war nañ leen a tëgg nag. ñoom ñaar. Mhm. tëgg. Ndiogu. Mhm. ji dafa mel ni daal Modou. Mhm. nee na wala boog estafam. xaadim nangu woon na mais biram ni ñu ko déggee daal moom. bañ na bañ na. nekk na ma si waaw daa ko non yow bàyyi ko rek ko bi wax dañuy ceel bañ na. Mm-hmm. mais Modou itamit man si ma ko doon dégg lépp mosul wax ni du bëri diw mais daf ni damay may yi seen sens. Mm-hmm. ñoom laay bëreel noo jàngatee wax ji. waa xam nga mbër moom eh, staff da cee baax. Mm-hmm. parce que eh, mooy jox valeur mbër. boo yoree staff boo xamante ne bii mën nañ communiquer. xam nañ ni ñuy communiquer. mën nañ valoriser ki ñu yore xam li mu yor. Mm-hmm. boo dégloo man dama jàpp ni li xew nii yëpp communication la boo liiree entre lee les lignes. Khadim mm-hmm. Gadiaga dafa génn. defe naa somme bi mu njëkkoon a ñu njëkkoon a wax parce que waa ji bi ñu koy laaj ci wax ji dana ko yokk naa ko trois cent millions. Mm-hmm. ne ko parce que muuru buy bëree ak Balla Gaye làmb jooju. mën nañ ci am nangam. 10 milliards tudd na daal di joxe façon boo xamante ni bi ci la ñuy communiquer ak noonu la ñuy jaayee yëf yi wane ni danañ ko jaay maanaam 6 mois avant. avant lamb ji ñuy jaay yëf yi ñi koy njëkk a jënd prix bi nangam lay doon prix bi nangam comprendre ba ba mu yegg ci bis ba ñu muy soog a yegg 10 mille mhm. mu ne boo amee nangam yi kii mën nga am nangam. 10 milliards. donc ñoom dañu wan loolu Khadim Gadiaga dafa génn pour wan ñoom promoteurs yi ne leen xam nañ. xam nañ li ngeen def xam nañ jëf yi. Mhm. donc nag comme que xam nañ jëf yi. du caagi ni yéen a ñuy proposer kii mais mën nañ ci am nangam. pay per view ci wax ne. ba ne trois cent millions. Mhm. boo seetlee biram ñu ngi bi mu ñëwee tamit. Mhm. maanaam euh, booy négocier li nga bëgg da koy. da nga koy puus yitteelu la li la yitteel mooy li nga bëggut maanaam moom ngay wane fekk ne dafa am leneen loo bëgg biram dafa ñëw romb li xaadim gajaga wax mhm. daal ne Moodu boo ko doon fay yaakaaruma déglu baat bi mu utiliser dana yaakaaruma mu nangu ko ku ko fayoon cinq cent millions it yaakaaruma mu nangu ko mooy yow mii ñëw mhm. boo yeboo gànnaayoo cinq cent wala sept cent boo boo amut lu boo amut lu ëpp bu gànnaayool 700 boo ko amut ba amoo ko ñëwal ak 500. <laughs> mooy li nga doon démb ci yàlla bu bu déwén naree ñaaw na mel ni ren. voilà yaa ngi dégg en tout cas li nga war a fay. bu mu yées 500. kon bañ yaa ngi dégg. Ah. maanaam loolu mooy ñoom ñi ngi ci seen plan de communication. Mm-hmm. boo xamante ne bi moom lañu teg. Oh. ci taabal ji ñu ngi communiquer fi mu toll nii ñu ngi wax léegi nag. promoteurs yi mën a liir entre les lignes xam yëf yi. Mhm. xam nañ ñii li ñuy wax lan la. Mhm. léegi nag ñun ñooy gis naan non dëgg la Modou Lo vraiment non du bëree kërëb kërëb parce que lii ak laa. fekk na ñi ngi waxtaan. waxtaan juddu na. maanaam nii yëf yi demee. Mhm. mooy waxtaan. lancé nañ ne nii lañ bëgg a waxtaanee. yéen ñi war a ñëw bu ngeen di ñëwit xam leen ni ñun nii lañ bëgg a waxtaanee. waaw léegi nag buñ ñëwee nag di wax. léegi nag biram danaan ah xanaa ma jéem a wax ak Moodu. waaw. <laughs> waaw ndax dugal na baatu bi yaakaaruma. yaa ngi dégg yaakaaruma. Ah, ñaan ko rek laa mën a def parce que man Moodu man li ma ko xamee. nii wëg nii maanaam pour day wane ni yëf yi day jafe. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Alaaji nag léegi lan moo tax ngay ngay ngay wax amee ci penc bi yooyu tam nag Alaaji. <laughs> Ah, <laughs> alaaj xam nga tamit du ma ñëw rek tamit daa di daa di nelaw fi kii quoi xam tamit boo gisee. <laughs> maanaam da nga leen wax bu leen laaxatu gis naa leen. ah non mais xam nga tamit. par exemple ah, gis naa leen. di wax dëgg fa yàlla su ma nekkoon promoteur yor li ma xam ni mooy kii préparé comme parce que xaadim Gadiaga daf la tëralal ni nga war a doxalee yow promoteur. bii ñëw wax pour jaay kii wax la ni nga ko mën a jaayee. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Ah. xaadim Gajaga. te xaadim sax biram ñing muut loo réeroo wuñ. alaaj te xaadim Gajaga. am na engagement yoo xam ne bu demee ba di ko jël. Hmm. yaa ngi dégg léegi nag ci diggante boobu nag biram def sorti wane ni xaadim dafa yéene rek. Hmm. mooy mooy président écrit ba waxee ni waxee ni. xam nga xaadim. Hmm. xaadim li ñuy jaayee code yi la wax. mais fàtte na après les vidéos yooyu yooyu yëpp xam nga. te ko calculé la ni code yi. bi mu bu dee nangam 10 milliards la war a doon. waa ji ni ko mënuñu koo jaay mënuñu ko non bu ñu defee promotion bi 6 mois. waaw. dañ koy jaay. waaw. après kon promoteur mën na am. xam nañ xam nañ yëf yi. Hmm. maanaam dañ lay wan tamit promoteur yi ne leen ñun nelawuñ quoi xam nañ yëf yi quoi. donc nag xam leen nag ni ngeen di waxtaanee ak ñun. <laughs> waaw loolu la. fekk léegi nag il faut nag ñu ñëw. jéem waxtaan ak biram biram ne ah man nag. wax dëgg yàlla man Moodu sama doom la papa la ma def waaye kii waaye nañ xool nañu waxtaanee moom. ab bu ñu demee bu daal di indi bu ñu bu dee dañoo indi ay 600. daal di ko wax na ko mën nañu muuru muuru bañ bañ lu ñu dolli. ci tuuti waa alaaj grand baax na waa na merci alaaj jërëjëf. <laughs> boo boo bàyyee rek classe Assane gi fi lay jekk daal parce que day bëre parce lii ak laa lii ak li fekk gaa yaa ngi waxtaan Assane. <laughs> waaw bu ko bu sottee bu ni maa ko waxoon <laughs>